أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده ويدفع عنا بلاءه ونقمه والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم mbokki nu bokk الإسلام mbokki lislaam yéen ñu baaxoo Sunrise TV ñoo ngi leen di nuyu nuyu biñu ñu lislaam boole mu ëmb jàmm ëmb barke ëmb yërmande yan na ko yàlla wàccee ci seen kaw te muy asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa ñoo ngi leen di dalal beneen yoon ci seen émission miraati bayti zawaaj muy seetub néegu sëy ngeen ci ànd seen xarit di seen mbokk Mouhamadul Habib Ibrahim Hassan Thiam nekkal ñu ci caméra bi suñu xarit suñu àndandoor Ibrahim Thiam ak alxaaji Ndimbalaan mbokk yi ñëwaat nin ak yéen ci jéem a seetaat néegu sëy ci jéem a neexalaat néegu sëy waaye ci jéem a génnee jafe-jafe yi nga xamante ne mu ngi ci néegu sëy ndax doomu aadama yàlla moo ko mooñaaleeg bëgg sëy góor day soxla jigéen jigéen it day soxla góor ànd ak loolu ñaar ñu mun di ànd jafe-jafe man na di xew seen diggante waaye jafe-jafe yooyu lii waral mu xew mooy ne fanu jaar ba yegsi fan yegsi wala fanu jaar ba yegsi fan yegsi baax na wante nag ba ñu yegsee nan doon jëflante nekkut lu jaar ci yoon looloo tax nag loolu su amee sharia dañuy jox ay yoon yoo xamante ne ci la ñuy defaree sëy ndéem mu ngi naqari si la ñuy defaree sëy ndéem dafa tas te bokk na ci yoon yooya mooy ñaar ñi xamante ñaar ñi muñalante ku nekk xam ak xam tey nag incha allah pour néegu sëy yi gën a jaar ci yoon pour néegu sëy yi gën a neex nu nuy topp dañuy dugg ak ñoom ci beneen néeg dañuy dugg ak ñoom ci beneen façon ngi néeg boo xamante ne benn néegu sëy ba bëgg a jaar ci yoon mënul cee bañ a dugg bépp néegu sëy boo xamante ne néeg wu mel nii nekkul ci rek xamal ne néegu sëy boobu dana am jafe-jafe jafe yi dana bari waaye mën naa àgg ci tas néeg boobu nag mooy néeg boo xamante ne jigéen lépp lum soxla mu ngi ci ñu ànd ak yéen tey ci kër gu ñuy tuddee Al Maktoum VIP shop Al Maktoum VIP shop nga xam ne képp koo xamante ne bëgg na néegu sëyam neex walla képp koo xamante ne néegu sëyam dafa am jafe-jafe wala képp koo xamante ne jëkkëram da koo fase benn mbaa njaar mu bëgg delluwaat ci buumu sëyam na fexe jaar ci néeg bi ñuy tuddee almaktuum VIP shop ci naka yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ñu xamal ne bokk na ci liy waral mbëggeel ak bëggante ak li koy gën a dëgëral mooy lan lu ñuy tuddee kado mooy lan mooy lu ñuy tuddee saraxe mooy lan mooy lu ñuy tuddee maye moo tax mën nañu tahaadu tahaabbu na ngeen di joxewante kado fekke ne jëkkër ji yenn saa mu genn dem ci boutique bu mel ni duggu fa xol bagage yu mel ni nga xamne lepp lu jigen soxla mu ngi fa mu am lum jënd ñew jox ko jabaram kado jabar ji dana ko gëna bëgg te fi yow goor bi bëgg joxe kado sofi fi duggé rek sa jabar dina feex sa jabar dina kontan jigen jo xamantene bëgg na it jëkkëram kontan ci mom bëgg na jëkkëram gën ko bëgg mun munta bañ a dugg ci bii mun munta bañ a dugg ci bitig bi ndax loo fi jëndee di ko jox sa jëkkër da koy kontaanloo da koy bégloo loo fiy jëndee di ko def ci sa yaram wala nga koy def ci sa néeg wala nga koy def ci sa saal dafay bégloo sa jëkkër dafay bégloo sa ki nga xamante ne mooy sa borom kër te képp koo xamante ne mu ngi bégloo borom këram du am jafe-jafe ci néegu sëyam su amee jafe-jafe ci néegi sëyam mën na ko defar moo tax lu ñuy tuddee dafa baax ci sëy sëy bu ko amul du dox lu ñuy tuddee cuuraay dafa baax ci sëy sëy bum amut du dox cuuraay ci boppam ñëpp ko soxla sëriñ si dañ koo soxla imaam yi dañ koo soxla waaye rawatana jëkkër yi moo tax yu nañ bi sallallahu alayhi wasallam daan na jëfandikoo cuuraay ci këram daan na jëfandikoo cuuraay ci jàkkaam waaye daan na jëfandikoo cuuraay ci yéreem ndax mu lan mu xetal mu defal yare yéreem ak jàkkaam ak néegam xet bu neex te xet bu neex dafa baax ci sëy waaye rawatina ci nawet ci nawet bi nawet bi jigéen ju si bàyyi xelam néegam dina xasaw néegam dana tilim te fekkee ne jëkkër ji saa su ñëwee fekk néeg bi di xeeñ lu naqari mën naa indi jafe-jafe moo tax na ñuy faral di ziyaara bitig yu mel nii mbokk yi cuuraay yaa ngi fi bëri lool jamono ji sëy dafa neex ndax saan bitig yu mel ni dañuy dimbale ci sunu sëy bitig yu mel ni dañuy jàppale ci sunu sëy sëy bi nag suñ ko waxee góor gi la ak jigéen ji bitig bii suñ ko waxee góor yi daañu fi dugg waaye jigéen yi daañu fi dugg ñëpp a fi war a dugg dafa war di fees ku nekk di jël di yóbbu cuuraay yi saan yu fasantikoo yu bari moo fi am te cuuraay yëpp tur yin koy jox dafa nekk tur yoo xamante ne dafay féexloo xol dafa nekk tur yoo xamante ne dafay bégloo xol dafa nekk tur yoo xamante ne dafay neexal néegu sëy te sëy yi dañ koo soxla bu ma yërëm mu ngi fi na bagage dugg mu ngi fi looy xaar mu ngi fi dégg nga kon ñëw leen ngeen jënd daal di yóbbu néegu sëy yi neex mbokk yi dafa am benn waay xam naa ne ci gunóor yi yi la bokk dafa am jafe-jafe ak jabaram xam ne benn jabar la ko yàlla nattoo bi mu amee jafe-jafe ak jabaram jabaram def na lu nekk pour lan pour waa ji wàcc pour lan pour jëkkëram jéggal ko waaye jëkkëram mënu koo jéggal jëkkër ji dem na ci imaam dem na ci kilifaay koñ yi dégg nga boole leen ak jabaram waaye jabar ji su ñëwee rek nekkoo maala maa la ma mu bay maa la tooñ jéggal mu bañ benn bés mu dem ci benn borom xam-xam bu muus benn borom xam-xam bu xam jamono mu ne ne man ak sama jëkkër dañoo am jafe-jafe dañoo am jafe-jafe te jafe-jafe baa ngi bëgg a yàgg jafe-jafe baa ngi bëgg a yàgg léegi nag dama bëgg nga xelal ma sama jëkkër dellu siwaat ci man te man rek la am te xam naa ne soxla na ma waaye damaa mere nag léegi nu may def waa ji ne ko ni ngay def mooy sa jëkkër su demee liggéey na ko koowal mel ni dang nga koo namm benn ñaareel ba xamal waxtu bu muy wàcc ñaar ñetteel ba mooy fexeel su wàccee mu gis ci sa néeg ak ci sa saal loo xamante ne mosut koo gis mu ne ko ne ah mu ne ko ne waaw mu ne ko lu mel naka mu ne fekkee ne sa lal bi danga ci daan lal darab bu weex fexeel tey nga ciiñ ko def ko dara bu xonq mbirangoog mu ne ko ne fexeel ba jëkkër ji suy dugg ci néeg bi wala ci kër gi na ko cuuraay bëgg rey na ko cuuraay bëgg rey jabar ji ne ko dégg naa li nga wax mu dem moom jabar ji kool jëkkër ji ne ko namm naa la kenn ngay wàcc jëkkër ji ne ko sa yoon nekkul ci mu fay téléphone dem jënd cuuraay bu neex a neex ñëw taxal ci néeg bi kër gi yëpp di xeeñ cuuraay mu jël darab bu xonq te xam nga ne lu xonq dafa neex ci sey moo tax mbir yu baree bay dañ koy def mu xonq ci sey lu mel ni pom lu ñuy tuddee lu ñuy defar mu mel nii loof nga xam ne nii lañ ko defee dañ koy def mu xonq lu tax mooy lu xonq dafa neex ci sëy mu jënd yu mel noonu jënd làmp yi nga xamante ne yenn saay mu green yenn saay mu weex yenn saay mu bulo yenn saay mu xonq dégg nga def ko ci biir salle bi def ko ci biir néeg bi néeg bi di xoyom xoyom yi waaw fay làmp bi nag ah emul ci waaye jënd yére yoo xamante ne mosu koo jënd ndax moom su daan tëdd dégg nga yu yàgg yooyu la daan jëfandikoo mooy morceau yooyu nga xamante ne maire yi dañ ko daan ñëw di ko jëfandikoo ñu koy tuddee beeco waaye bii yoon dafa dem ci bitig yu mel nii fekk fa yëre yoo xamante dañ koy sol mu mel ni yére waaye fekk du yëre ndax soo ko solee lépp lu ci biir ki lay xool daf koy gis mu dem jënd loolu cher na nag waaye mën naa defar sëy ah jëkkër ji wàcc ne ah tey lii xeeñ ci kër gi neex na commencé waale muuñ nag mu dugg ci néeg bi fekk lamp wi lamp yi di xoyoŋ xoyoŋ néeg bi rafet neex lool macha allah cuuraay bi bëgg ko rey ñu tegal ko añ mu dóor ba di bëgg a dee soxna si nag ne tey moom damay tële tëdd dugg ci néeg bi rek góor gi topp ko mu tëj buntam simmi complet am sol yére ba mu jëndee ci bitik bi yére boobu mi wax léegi nga xam ne benn mu ñuul mbaa mu weex mbaa mu konk waaye soo ko solee mel na ni solloo dara emul ci waaye lépp luy takkaay mu fexe takk ci yaram wi waaw buumi ndigg yi nga xam ne ay fer yu génn bees nekkut fer yi yàgg yi yàgg la daan jëfandikoo ay per waaye bii yoon moom yii takk la jëfandikoo takk ci ndigg bi ah jëkkër ji fi toog rek affaire di xoyom xoyom yi ndigg baa ngi xoyom xoyom yi néeg baa ngi xoyom xoyom yi lal baa ngi rafet mu ne ah mbir xew na waaye jabar ji ma waxu ko dara waxu ko ne sax bii nijaay baalal ma ñu tëdd ci kaw lal bi mbokk yi biñ tëddee ci kaw bi jigéen ji téye boppam waaw jëkkër ji laal ko ne ko may ma ndox ma naan xam nga ne ku reer ba suur naan ba màndi tëdd ci kaw lal naan may ma ma naan am na leneen loo bëgg waaye jabar ji comprendre ko rek wàcc rek dem may ko ndox mu naan mu naan mu égaat ci lalam tëdd ah téye boppam jëkkër ji téye boppam ñu toog ba ci kanam jëkkër ji ne ko waaw ndax moodu dem na école mu ne kon ah nijaay kañ nga daan laajte naan Modou dem na école waaw dem na kay mu téyewaat boppam jëkkër ji tamit téye boppam ñu dem ba ci kanam mu ne ko ne ah sa yaay ñëwut fi tayam mu ne ko ne hee nijaay man sama yaay dee bu yàgg ngay laajte naan ñëwut fi tayam mu ne ko hee eh, man damaa bëgg a naax waaye ndekete moom mu ngi bëgg a créer waxtaan jabar ji tamit comprendre xam ne nijaayam tey nag affaire yi yëngu na xol bi yëngatu na xel bi yëngatu na macha allah yaram bi maas na mu ne ko nijaay baalal ma mu ne ko bi ma la baalalee du tey <laughs> bi ma la baalalee du tey gis nga kon li ma lay jàngal mooy jafe yi am na yoo xamante ne waxtaan munu ci dara am na yoo xamante ne dégg nga euh, waaraate munu ci dara am na yoo xamante ne jëggalu munu ci dara waaye jëf moo ci mun dara jëf yooyu nag bitig yu mel nii moo ci gën a gaaw. kon jigéen yi bëgg seen néegu sey gi neex nañ fi jaar waaye koo xamante ne moom yitteelut yii kooku na bàyyi xelam du naqadi ci néegu seyam moom la te xam ngeen ne bagage yu ñuy jaay fii ñu bëri dañ koy sol sax ci mbedd mi waa fekkee ne sa jëkkër su génnee ci mbedd bi gis yu mel nii dugg ci kër gi nga koy solal ay xartuum wala nga koy solal ay robb wala nga koy solal ay waxta ay xaftaan ba ci kaw lal bi yow daal lu yàqu ci néegu sey bi yow moomu yaa ko yàq kon nañuy ziyaara bitig yu mel nii dafa baax ci sëy moo tax sharia ne la jigéen bi suñ ko fasee bum dem ñibi foos fase warta ñibi dafa war a toog ci kër gi alquran ne laa tuxrijuhunna min buyutihinna bu leen leen génnee seen kër yi ñu ne lan mooy secret bi ñu ne dañoo bëgg jigéen ji des ci kër gi di defaru di solu di def yooya di mañeeru ndax jëkkër ji xelam del siwaat mu xam ne kii nag su iddaan jeexee ba dem bala ma siy jot dina métti kon yow miñ fase bul gaaw a jël sa bagage dem ñibbi comme que fase bi benn la ñaar la warloo ñibbi da nga war a des ci kër gi di defaru di laal parfum di laal cuuraay di defar néeg bi di di charme sa jëkkër di dem ak moom yu mel noona dafa baax ci lii nga xamante ne mooy néegu sëy mbokki nu bokkee la mbokki lislaam jigéen danay juum comme ni jëkkër di juume waaye ñoom ñaar ñëpp ku ci am juumte ci sa néegu sëy ni nga koy defaree bari na mooy nañ toog ñu waxtaan niñ koy defaree bari na mooy nen jëndalante cadeau bi joxe wante cadeau waaye tamit sëy dafa nekk loo xamante ne benn anam doyul ci ni nga sëyee barki démb sëyee ko tey sëyee ko ëllëg sëy boobu day sàppi waaye yenn saay di ci beesal dafa baax beesal boobu nag jigéen ji rek mënut ko waaye góor gi yenn saay nag génne xaalisam jox jigéenam ne ko lii na dem ci sa bagaasu néegu sëy yenn saay moom ci boppam na ñëw ci bitig yi di jënd kado di jox soxnaam loolu dafa nekk loo xamante ne luy defar néegu sëyam la dafa nekk loo xamante ne lu baax la ci sëyam la waaye ku nekk téye boppam rek loolu baaxul bitig bi ñu koy tuddee Al Maktoum VIP shop baax na ci néegu sëy yi moo tax jigéenu suñcu alaaji yi jigéeni kostoroot yi nga dégg ci ne am na ku am jafe-jafe ak jëkkëram bariwul ndax kii moo leen di dimbale kon képp koo xamante ne bëgg na néegam gën a neex néegam gën a rafet mën ngaa ñëw costoroot rek soo ñëwee costoroot soo laajtee almaxtuum dégg nga VIP shop danañ la danañ la fi indi soo jog kook jokkoog Sunrise TV di nga gis nomba yi te soo amee nomba yi loo bëgg rek mu yomb ndax bitigu taalibe la lépp yomb waaw bitigu taalibe ñëpp lay jàppalante dara cherut lépp a yomb te lépp loo soxla nag li ca ba ngay labat yow góor gi mu ngi fi ba ngay joxe guru mu ngi fi ba kerek ñu lay takkal lépp lu xale bu jigéen bi soxla nga soxla ko mu ngi fi ba kerek guddi gu mu ngi fi ba ngeen di am dom mu ngi fi ba kerek dégg nga ngay ngénte lépp loo soxla mu ngi ci bi bitik bi daal lépp saabu mu ngi fi dégg nga karité mu ngi xam ngeen ne karité baax na ci yaram ndax rawatina jëkkër yi nga xamante du ñuy toog ñoom suba ba ngoon ñu ngi egg di wàcc rek seen yaram yi day forox yaram bu forox boobu nag a bës rek mënut ci dara fekkee ne da ngay bës bës rek mënut ci dara bés ba yenn saa il faut mu ànd ak il mu ànd ak karité yenn saa yi il mu ànd ak yeneen i façon yi jumtuwaay yoo xamante ne soo ko ci boolee ba teg ko sa loxo bu nooy boobu teg ko ci yaramu waa ji moom keroog lépp la doon métti fàtte ko waaye jigéen joo xamante ne moom jëkkëram day tukki di dem ak ñëw wala jëkkëram day xëy enu bagage ba sonn ñëw waaye masu koo bësal gannaawam kooku lu am jafe-jafe ci sëyam rek moom la kon mbokk yi yéen ñu baax ñu ñuy déglu sëy baa ngi noonu nañu dimbalante nañu jàppalante jigéen yi dañ leen di jàppale ñoom bëgg nañ lu nekk suñ sañoon kenn ñéegam du am jafe-jafe suñ sañoon kenn sëyam du am jafe-jafe waye sey nak munta baña am jafé jafé yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak lu muy for jabaram yi ak lu ñuy bax dañ daan am jefe jefe, dañ daan am problème yonent bi sallallahu alayhi wasallam jabaram yi dañ ko créer problème rawatina so amé ñaari jabar ñetti jabar ñent jabar ñom jabar yi seen bop yenn say ñoy créer problème yonent def nañ ko loola bañu créer problème yonent bi mer nak day mer mer gu jéggi dayo bané man duma fanan ci kër gi damay génn kër gi <laughs> mu foog ne jigéen ñi dañ koy neexal ku nekk tiye boppam yeneen te bi enu bagasa basangam enu ngegenaayam enu yëreem dem ci jàkka ji man fii laay toog soo jabar dañuy font xoolal problème biñ ma créer rek waaye xaaral ñoom laay ñoom laay mbugal ah yeneen te dem ci jàkka ji benn fan ñaari fan ñett fan ñeent fan ah jigéen ñi kenn demut neexali ko <laughs> ñëpp ku nekk mu ngi téye boppam yeneen bi nag ah mbir mi du dem de xaaral ma leem samay basang jël sama ngaginaay jël sama yëre delluwaat ci samay soxna mu lem basangam jël ngaginaayam bokk téye basangam bokk ci loxo càmmooy bi ñëw dajee kenn ci soxna yi ci buntu kër gi mu ne ko ne xay yow de nag gaaw ngaa ñëw di xam nga loolu rek mën na ko rey mu demaat gisaat keneen keneen ki ne ko mën loo faa am weer mu demaat ci keneen gi mu ne ko ma foogoon ñaari weer nga fay am kon jafe-jafe mënut a bañ am comme que munta bañ am nag kun nañuy jàppalante nañuy neexlante waaw góor yoo xamante ne benn ñaar rek ñu ne duma fanaan ci néeg bi saal bi laay fanaan dafa fekk néeg ba melut nu mu war a mel waaye su fanaanee ci saal bi benn fan yooyu xaw koo rey ëllëg dina dugg ci néeg bi du fanaan ci kawlal bi de ci suuf lay tëdd nag bàyyi ko rek gannaaw ëllëg kenn di ko wax égal ci kawlal bi lu tax mooy xeetu baax baax yi ma gis ci jamono jëkkër ju bëgg a daw sa yaay am problème waaye jigéen ji way and ak loolu nak nañu waxtaan nañu deggo nañu dimbalante yonent sallallahu alayhi wasallam sallam dafa amone jafe-jafe ak soxnam aisha. pour wan la né jafe-jafe munta a bañ am war la né jigéen yenn say ñu bayi sen ak ñu warugar te waxon na la li len war yenn say sa dañ koy bàyyi aisha radhiyallahu anha bim amé problème ak sang bi sang bi dem bayam bayam bakkar ne ko kay fajal ñu suñ problème Aboubacar toog radiyallahu an yonent bi toog Aïchatu toog Aboubacar ne wax leen Aïcha ne yonent bi waxal te bul fen waaw waxal te nga wax dëgg rek Aboubacar jóg ne day mbéj Aïcha yonent bi ne ko toogal indiwuma la fi pour nga mbéjaate dama la indi pour nga atte bi mu ko bëggee mbéj Aïcha dafa daw dem laqatu ci gannaaw yonent bi li ma lay wan foofu mooy lu ji bi jigéen ji am am problème yow la bëgg ndax su la bëggutoon du nekk ak yow. lum la wax lum naqadi naqadi wallahi yow la bëgg ndax su la bëgg toon du la jural doom lum la wax lum naqadi naqadi yow la bëgg ndax su la bëgg toon du la toggal du la rootal du la fóotal du la paasel ndax su amee jafe-jafe ci yow lay jëm comme que noonu la nag kon da nga xam ne yàlla nee na jigéen dañ koo mooñaaleeg bëgg xuloo dañ koo mooñaaleeg jafe-jafe dañ koo mooñaaleeg coow comme comme que dañ koo mooñaaleeg coow yeneen bi saa sam nee na ku gën ci góor yi mooy góor goo xamante ne day teral jigéenam ku gën ci góor yi mooy góor goo xamante day teral ay jigéenam moo xam magam yu jigéen rakkam yu jigéen ay soxnaam yaayam waaye rawatina sa soxna yeneen tamit ne góor gu baax rek moo leen mën a teral nga déggee ci ne góor gu bon rek moo mënut teral jigéenam mooy mooy dóor mooy fase-fase gu ëpp mooy saaga ndey waaye ku am xel te baax te muus ni ngay def mooy su jafe-jafe amee fii ngay dugg rek jënd benn bagage bu correct rek waaw kurus yaa cuuraay yaa ngi fi xeetu baax baax yaa ngi fi parfum yaa ngi fi laskoleñ yaa ngi fi saabu yaa ngi fi kado yaa ngi fi fii ngay dugg rek jënd benn rek yóbbaale sa jabar kerek boobu lum la bañ bañ kerek la lay gën a bëgg kon seen mbokk la Mouhamadou Habib Ibrahim Hassan Thiam programme bi ni ngeen ko gisee ñu ngi ko defee ci bitigu Al Maktoum VIP shop mu nekk ci Coste Road nga xam ne suñ mbokk mustafa moo fa nekk képp koo xamante ne bëgg na sëyam neex bëgg na sëyam gën a neex jëkkëram gën koo bëgg wala jabaram gën koo bëgg wala koo xamante ne sëyam mu ngi am jafe-jafe wala yéen xale yi nga xamante ne yéen a ngi tàmbalee sey yéen xale yi nga xamante ne yéen a ngi tàmbalee maye guru suñu mbokk ndimbalaan ah bitig baa ngi noonu ñu ngi oo suñu mbokk sponsor yi ak képp koo xamante ne bëgg naa dimbale Sunrise TV ndax ay ndaw ñoo fa nekk yoo xamante ne dañuy góorgóorlu rek ñi bëgg a sponsor euh, programme yi fii dox Sunrise TV mu ngi leen di dalal nomba yooyu mu ngi ci gannaaw képp ku jox kook ñun rek ak sa bitig fu mu mun di nekk ñun ñu ngi ànd ak yow ku bëgg a yéebaane ay bitigam wala nga bëgg a yéebaane sa bagage ñawkat yi jaaykat yi liggéeykat yi képp ku mu rek Sunrise TV yéen la fi nekkal ñu dimbalante ndax liggéey bi mën a dem kanam Gambie mën a dem kanam kon nag ñu ngi leen di dalal ci Sunrise TV nomba yaa ngi noonu ci seen gannaaw والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته